moo di mbir contumace moom taxawul mi nga xam ne itamit ni Sonko est mal encadré ca jamono jooju nag Walf Quotidien ñoom ña nga woon ca toogaa ñu ñaxtu ngir jàppale ki nga xamante ni moo di seen chroniqueur bii di Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ni moom lañ denc ci kaso bi boobe ba léegi jamono jooju tamit Sonko mi ngi ci kaso bi moom nag fukki fan ak juróom moom ay ñoñam ñi ngi ci grève xiifal jamono ji nag seen bakkan mu ngi ci xot Amadou Ba ci biir laas yéene kaay ca jamono jooju nekk ki lay di Abdoulaye Seydou Sow moo ko di Kaffrine ak ay ñoñom dal bu am solo sax lañ ko dal Aly Ngouille Ndiaye moom ca jamono jooj ci biir 24 heures mi ngi xam ne ni noppiwul benn yoon ngir bàyyi li nga xamante ni moo di candidature Benno Bokk Yaakaar li mu xam ne moo di dafa bëgg a li nga xamante ni moo di candidature Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yii di ñëw li mu bëgg moo di jël li nga xamante ni moo di njiit réew mi wuutu Sall ci mim réew ca jamono jooju nag laas yéenekaay bi ngi xam ne ni Macky Sall moom joxeegul ndogalam ndaxte àllarba bii di ñëw lay joxe ndogalam kan moo war a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar les écoles yéen eh, dina xam ne ni ñibbi si Karim ki nga xamante nag moo di Alioune Aydara Silla Alioune Diop ak Saliou Dieng ñoo ci xar seen tànk tubé taxaw ci temm ngir Karim daal di ñibbisi ci miim réew sëriñ Abdou Karim Mbacke makaarimal axlaa ki muy jàppale mooy Abdoulaye Sylla li mu xam le nag moo di Abdoulaye Sylla mooy candidat bu baax ci miim réew ngir élection yi di ñëw yor yor yéene moom nag li mu fësal ci xëtam mu njëkk moo di caxat-caxatee li nga xamante ni moo di code électoral bi nee na nag Macky moom moom moo di Karim Wade moom xamul fi muy taxawee Khalifa Sall moom xamul sax benn tànk lay feccee Sud Quotidien moom nag euh, li mu fësal ci xëtam mu njëkk li nga xamante ni moo di état de droit dafa deltu ginnaaw bu baax a baax waaye ki nga xamante ni nag moo di Ibrahima Kane moom mi nga xamante ni mi ngi bokk raado moom la ñu invité woon ci benn émission foofee ca Sud FM mi ngi xam ne ne ki xamante ni moo di Ismaïla Madior Fall ak Antoine Diome ñooy ndeyu mbilli gi luy njiig ñooy njàkk wàllum état de droit ñoo ko caxat-caxatee ba amatul benn njëriñ fi ci Sénégal le mandat yéen kaay mi ngi fësal ci xëtam mu njëkk photo gaan mu taxaw sol mbaxane di wax ak ñi nga xamante ni ñoo di ndaw ñi li mu xam ne moo di bàyyi benn màggat tànnal ndaw ñi li ñu war a def wala sax ñu leen di jëlal dogal mi nga xam ne itamit ci biir le mandat yéene kaay ni ndaw ñi nga xamante ni am na ñaar fukki at ak ñeent ñoom xamuñu kan mooy Khalifa wala Karim Wade libération nag mi ngi fësal ci xëtam mu njëkk wàllu mbëkk mi neen lu ëpp ñetti junni sénégalais weeru avril ba léegi Sénégal nag dafa daal di teer fa nga xamante ni moo di laa ñu wax ci bés bi la jour bés bi la jour dafa amal ab gëstu bu yaatu ci wàllu tukki mi ñi nga xamante nag dalal na leen ci biir bés bi la jour li nga xam ne moo li tax ñu jël gaal yi dem danoo ñaan visa ba sonn ngir dem Europe waaye dañ leen ko lànkal moo tax ñu daal di jël li nga xamante ni moo di mbëkk mi waaye am na ñoo xamante ni nag neen gis nañ seen bopp am na ñoo xamante ni nag nee nañ ban dem lan gis dootuñu del waat ci gaal yi Vox Populi moom nag li mu fësal ci xëtam mu njëkk moo di ceeb ba nga xamante ni moom mooy yàq foofee ca wàllu téeméer yoo jël nag juróom-ñett fukk yàqu noonu ki nga xamante ni nag moo di Cheikh Sarr di président GIE suqali waalo moom nag mi ngi woote wàllu ngir nguur gi ñëw dimbali leen ngir ceeb ba yàq ca waalo ñu daal di cay am li nga xamante ni moo di saafara ñu wax ci coup d'état bi nga xamante ne nag moo am foofee ca Niger CEDEAO nag mi ngi rassemblé ay troubam yéenekaay bi di bés bi le jour nag mi ngi xamle ni jàmbaar yi naka la ni waajale li nga xamante ni moo di seen bopp l'observateur nag mi ngi xamal ni ñi nga xamante ne nag ñoo di jàmbaar yi di soldat Sénégal yi di ngi waajal seen bopp bu baax dafa mel ne sax ñuy dem guerre le quotidien yéenekaay nag mi ngi xamal ne ni noonu jàmbaar yi jii sax la ñuy dajaloo foofe ca Thiès ngir dem fi nga xamante ni moo di Niger ci mission CEDEAO wàllum tàggat yaram stade yéen kaay coupe arabe des clubs Sadio Mané na kaddu ndam li si kaw Koulibaly bii nag mooy fukk ak ñetteelu raay mu di ko am ci biir carrière am ca jamono jooju nag abu jàll moom mu nga wutale ca Qatar Habib Diallo am ab salaire bu baax foofee ca Al Shabab sunu làmb lan kaa jeexalee moom nag li mu fësal ci xëtam mu njëkk moo di làmb ji sàjji